wa anta jalilun jawadul karim yuriduna waalay xawilan wa inni auzuha bika wa zurriyataha min seytaani rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatin wa auzu bika rabbi an yahduruni auzu billah bismillah inna waliyallah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bu ñu leen nuyoo te di leen ziar di jiital ci ziar bi Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Bachir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi noonu lañ koy ñaanalee bépp xalif suñu borom dogal nga ne ci réew mi ñu ngi ñaan suñu borom oyofal yan bi ci sa kaw ba nga eggali sa naalu maam ci daraje Seyduna Muhammad di ñaanaat bu baax suñu borom dolliwaat jàmm ci réew mi defal ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi Euh, seen borom delloo leen ci seenuk njaboot ci dërëjëy Seydina Muhammad mbokk yi di ñaanal bu baax suñu borom dolliwaat jàmm ci réew mi ba mbas mi nga xam ne moo fi eh, am mu ko ba ku ci nekk delluwaat ci sa yitte euh, di wax ni seen émission Ahlou Nabi tey euh, ñëwaat nañu dalal koo xamante ni ndaanaan la koo xamante ni kenn du ko présenté boo demee Tivaouane mu nekk koo xam ne bàyyi nañ ko fa xel loolu soo ñëwee fii ci Ndakaaru moo nekk koo xamante ni ku ñu ràññee la muy alaaji Pape Serigne la di tàggatu yonent boo xamante ni mën nañ ne ndaanaan la tey Pape Serigne dañ lay bàyyi rek nga daal di yokk suñu mbokk internet yi. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp di leen ziar di leen baalu xaq comme ni mu ko waxee rek jiital ci tabaarakallaahu sëriñ Babacar Sy Mansour. macha allah général de Tidiane yal yàlla guddal fanam yoral ay cëram mbooleen mu xalifa bu nekk ci Sénégal rek yal yàlla defal la jàmm defal la sutura nuyu ñi ma àndal di ñaan weeru koor gi niñ ko tàmbalee ci bisimilah rahmaan. yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilah rabbil alamin ji li maa ngi lay sant bu baax la gërëm. macha allah moom bi moo fi. macha allah tabaarakallahu mu nekkoon. Euh, xaaj Pape Serigne noonu mun yoo ñu xam ni am na solo waaye nag mu am beneen daanaan boo xamante ni dañoo ànd ak moom ci jotaay muy Café Touba Chicory di sponsor euh, boo xamante ni tey moom la ñu àndal ci jotaay bi muy euh, Café Touba Café Touba euh, bu ñu nee café pur da cee baax bu ñu nee café da cee baax bu ñu nee tamit léger da cee baax waaye doon na doon original Café Touba Chicory mu nekk café boo xamante ni daanaka boo koy naan diñ ci yëg sa bopp bu baax surtout ci jamonoy weeru koor gi nga xamante ni ci la ñu dëgmal ñu àndoon ak moom di wax ne ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax 1 kilo baa ngi nii 500 grammes baa ngi nii euh, bii mi ngi jar 3000 bii mi ngi jar 1500 di wax ni kon mbokk yi Café Gaago ngeen bàyyi ko xel ñu àndoon ak tey nag euh, ki nga xamante ni mooy suñu invité du jour de xaaj Pape Serigne euh, Pape Serigne tey ana lan ngay nuyoo Seydina Mouhamad. على النبي وعليهم أجمعين السلام منع باب صابه سألت يا رحمن يا شقتي يا مولي النافي عن عذاب الحبيب أسمائي كالحسنى وأعظمها والأنبياء ومستسير كنظمه محمد على نبي وآله سلام ndeysaan muhammadun ahmadul mahi wa hasiruna nabiyu marhama ndeysaan tin tawbi wa muntahami ndeysaan ثم المخافي بشد الفائق دبتو وكيسها وشو كون الياب كبهم الله نسبه من أنبياء ورسل الله كلهم على نبي وآله السلام دال مواهب لسان أسماء أنوار fa tabaarakallaahu maasha allah loolu ku ko dégg xam ni euh, ndaanan teew na ku tarbi lu muy def teew na koo xam ni dootuñ ko présenté teew na xaj Pape Serigne euh, tabaarakallaahu ci noonu nga euh, nuyoo yun ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam di wax ne nu ngi am mbégte ci sa teewaay bi fii ak ñi nga àndal ñëpp noonu la ñuy profité rek di ziar euh, ñi nga xamante ni ci seen keppaar la ñu leen xamee euh, mutahabina fillahi daayira bi nu ngi koy ziare bu baax leen jox seen euh, wàccuwaay ci président ba ci ki gën doon ndaw ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen ziar di wax ni mën nañ ni seen produit nga mën nañ seen élément nga ñu ngi leen di ziar di ziare bu baax kenn ci man euh, oustaz euh, tafakan ñu ngi koy ziare di ko jox wàccuwaayam moom mi nga xam ne bëggul ku dul yonent yàlla Muhammad suma xarit euh, suma jumeau bopp Babacar Diouf maa ngi bu baax di ko jox wàccu waay moom it euh, jëwriñ yeeg ñoom Amath ak ñoom Babacar ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziare leen jox seen wàccu waay di wax ne tey dañu ñëw dalal ndaanaan di wax xaaj Pape Serigne mu mel ni euh, mën nañ ne tuddkatu yàlla la nabien la ndax loolu da ko donn wala daa doon lu mu tarbi wala daa am koo xam ne idoolam la woon mu bëgg ko ba tax mu nekk nabien waaw jërëjëf xaj ji di ci question bi nga laaj loolu dama ci sawar a tontu euh, nag yàlla dafa def moom tàgg yonent bi maa ko tàmmee ci daayira Mutahabbina Fillah. ndeysaan. bi ñu jógee daara di ñëw ah, waa daayira bi di def daayira tabaarakallaahu ñuy dugal ma ci jàng tey siir jékki-jékki dugal ma ci woy ñuy dem comme booy ñaan ci woy ñu naan la yàlla na barkeel yàlla na yàlla jàppale la. Mhm. Ah, ñu dem ba affaire bi ëppatu ñu doole rek ñu nekk ci nii daal. loolu daal moo ñu dugal ci way tabarakallah macha allah comme noonu mu indee leeral yi ci euh, jaar-jaaram boobu nga xamante ni euh, def na ko ndax euh, moom mës naa def benn produit lu mel ni single wala wala dara. non man nag mosuma def single mosuma génne cassette parce que nag xam nga bokkul ci samay kii daal mais nag ñu bëri nag instant bi ñu ngi may wax ni ma jaadu na foog nga def ko parce que man Baye Mbaye doon rek mooy sama idole quoi moom laay roy. ndeysaan daaw ma ko gis mu génne ay euh, single daaw ma gis mu def ay vidéo lu dul ay gàmmoog yooyu. ci laa doon topp nag mais nag léegi nag dem na ba nit ñi ci boppam ñu ngi la koy imposer. Ah, macha allah jotee nag dina yomb incha allah. waa ci kàttanu yàlla bu jotee dina yomb comme noonu mu ko waxee di euh, àdduna moo toll foofu ndax euh, di nga gis jotaay am ci am ku mën a woy lool lool lool man Jëylaani sopp ma ko daa am ku may xaar mooy sama ndaanaan. te yàlla day dogal ne bis day ñëw man ma tukki te kooku dootuma ko mën a am su ma ko mënul am ci ay kasetam wala ci ay vidéo am ci laay mën a sukkandiku pour di bëgg ci euh, loolu muy def di loolay sabab euh, yenn saa yi ñuy ñuy ñuy ñuy wax nabiyen yi nañuy def ay single yu mel noonu ak ay ay ay œuvre yoo xam ne dinañ ko mën di garder di wax ni gannaaw bu ñu jógee ci loolu dinañ wax ni Pape Serigne mën nañ ne ndax am na groupe wala euh, dafay dem individuel waaw mën nag am naa group bi may bi may am groupe maag sama waa daayira ñu tudd ko sopp al amin loolu yàgg na. ndeysaan. tabaarakallaahu sama groupe nag man mii la ak xaaj Babacar Diouf sa xarit. waaw ak euh, Babacar moom sa ginnaaw ak Cheikh. Mhm. am na yeneen élément yoo xam ñëwuñu ñoom Ali euh, ñoom euh, Saliou. ndeysaan tabaarakallaahu am na Moustapha. ndeysaan wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam sax yàllaa ngi dogal mënuñu waaye ci suñu loxo lañu xaw a jaar ba xëy dem tukki. ndeysaan waaye nag groupe bi moom macha allah ñi ngi fi daal bu ñu woowee ñii ñii jàpp rek ñii ñu mën a ñëw daal. tubaarakallah nag moom groupe Sopp Al Amine la yàgg na lool na macha allah kon groupe Sopp Al Amine tey moom lañ dalaloon fii àndoon ci ak xaaj euh, Pape sëriñ euh, Sylla di ndaanaan di koo xamante ni euh, mën nañu ne kenn dootu ko présenté ci ci ci ci axlu na bi di wax ni Pape Serigne kon dañuy delluwaat ci beneen way boo xamante ni rek di ñu ko indilaat rek ci ëttu maam Seydil Hadji Malick ñu mën cee dugal suñu mbokk internet xaatimi nabi wa imaamil mursaliin ay Mamadou Lamine njol ma kayaa leen gën وجلالة وجلالة sang bee ca Medina. ndeysaan. jamaala. kenn du moom de. sang bee ca Medina. loo ciy wax. or la. kenn du moom. sang bee ca Medina. ku man gan la. sang bee ca Medina. ku am tane abe la. ak a wér xawaa kulla majdin lil wara wa jalalatin wa jaa bi ayatin maat kulla qaalatin moom yoneen fa man shakka fii fa huwa ilfu dalalatin ndax lan afil ak shakkun baada alfi dalalatin ndeysaan qadama zikrun man addaar yuqra njol makka yaa leen raw muhammad ndeysaan ala ahmadin min rabbi salawatu la lazumat fi xalqihi barakatu la bakarat samsa du'a mu'jizatu mooy bara innu wa la tarxali wa ibatu cey loolu wa ayatu sukur njol màkk yaa leen gën. kenn du moom sa bawta ila dunia wa zull bila yasbu. Eh, waay min aasil mun. baatuna xarbo fazara wa sharix yonen laa yaqiru bikal xarbo bi yasrib nuuru li nubuwati laa yaxbo yeneen bi tasharak fi idraaki tëf wal xarbo yeneen bi lañu yaakaar bu lëgee mu ñol makka ala kulli fannin fadala allahu fannahu ndeysaan jili yàlla nee na maa bind aadama ndeysaan te aadama amul baay aadamay waaxul tifli yàlla ne sama kàttan la man yàlla ak wér yàlla ne man a lewal aadama rocc ci faaru càmmooñam bind xawaa ak wér kon xawaa am baay waaye xawaa amul yaay xawaay waa xuy tifli yàlla ne sama kattan la man yàlla ak a wér jili am baay Iisa waa yàlla ne ma bind sayidana muhammadu rasulullahi sallallahu yënga ne yoneen am na seyduna muhammad am na bàyyi ak wér waaye gisul baayam ba tey yënga ne yoneen miinul yaayam déedéet yënga ne yoneen yàggul maamam ndeysaan mu woote ñi naan day njabaraan ak Seyduna Muhammad yàlla ni leen xale bii ngeen naan day njabaraan dinaa woo samay généraux ci liir bi inna allah wa malaikatahu yusalluna ak wér yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yëg kooku woowee nañ ko woowee nañ ko Basiirun ak nan woowee nañ ko Mubassirun ak nan woowee nañ ko Nazirun ak nan woowee nañ ko Tahirun ndeysaan woowee nañ ko Mutaharun ak wér tudd na Badrun ndeysaan woowee nañ ko Munirun ndeysaan tudd na Yaasin kenn du moom tudd na Taa ndeysaan tudd na Aqibun Muxtafin war nañ mu saaqib wa koy ajib lanaa bi jaayi baabikal aziim bi ayni naimi wa siraati almustaqimi laa ilaaha illallaah latiifu يا مصيف أنتم غردا لنا كذا المراد عيس عردا moom yeneen mooy alal muqaafi bi saydi saadaati salli wasawaay waahibi zam'aanu maa'i wasi yaa rabbal fala moom yeneen mooy fanaajihi mawlaaya min shari qala li ko ko may mooy yaduuka man yuraata min uruufa min salaatul faati duaa o ami kooku mooy sayduna muhammad rasulullah ci fi laysati kaanal ilmu taarifi alal buraq سوى تبارك الله ما شاء الله daa mel ni yow da waaj lii jotaay bii sa waay da ko waaj sa waay daa waaj daa waaj daa waaj ndax ndax euh, euh, euh, mel na ni yaramam tàng na mel ni yaramam tàng na waaye bëgg nañu réccuwuñu lu ñu la fi doon woowee barki yonent yàlla moo xam ne ku dégg ni mu woowee xam ne ndaanaan la ku dégg xaraf yi muy biral ci biir matku yi nga xam ni ku am am njàng la forol li mu def da ko tarbi day doon daanaan ci ci wayi ànd ak ñoo xamante tamit boo leen déggee bi ñu bi ñu ko mbaaree tamit da xam ne ay ay ndaanaan a ko dar muy wan ne ndaanaan ndaanaan ne ci ginnaawam di wax ni yal na yàlla defal leen jàmm ñu ni tey dañoo dalaloon euh, ki nga xamante ni ndaanan la di aaj Pape Serigne ñu ngi koy ziare bu baax di wax na nag dafa tudd koo xamante ni yàlla def na ni sama féete la alaaji Balla Jaw da koo bëgg a nangu ci man waaye duma ko nangu <laughs> taalibi Serigne Babacar si bu mag boobu euh, borom borom borom atelier euh, atelier couture boobu di waa kër sëriñ Babacar si ñu ngi koy ziar moo ñoom Mor Thiam di leen ziare bu baax di leen jox seen wàccuwaay di wax ne ñoom ñëpp rek dañoo bokk lu ñu mënta séddoo muy Sénégal ya yàlla def na ni maa ngi waajal benn bis boo xam ne dinaa ko def dinaa ko def te bis boobu Baye Fall la koy def jël bis bi tuddee ko Serigne Babacar Sy di wax ne ñoom ñëpp nañ ko bàyyi xel incha allah euh, xam naa premier samedi après Korité gi lay doon maa ngi ci woo adduna bépp nag euh, yàlla na ñëpp am jàmm di wax ni euh, Pape Serigne damaa bëgg nga woyal ma Seydi Hadji Malick bu ko defee ñu wàccee jotaay incha allah dinaa la woyal Seydi Hadji Malick waaye dinaa la sant gërëm la ndax damay wax sànq ci biir woy yi ma ni lii mooy Sénégal yow laa ji jiili yow bu ñëpp meloon ni yow réew mi jafe-jafe du fi am ndax tey jii ñëpp xam nañ fi nga féete. ak a wér. yàlla di dogal sëñ Muntaxa rek nga gëm. de am na. waaye. balay sama ca rafetal dara ñaaw. ñoo bokk koñ bi. waaw mais dara ñaaw. ndeysaan tey su ñu amee ay jàng yow da ngay ñëw. ndeysaan soo amee say jàng da invité. Mhm. ñëw ci. ak wér loolu rafetal la. musuma dégg nga wax baat bu ñaaw musuma dégg nga génne ko ci sa gémmiñ ndeysaan ndeysaan kon yow nit ñi dañu war di roy ci yow ndeysaan ndax damay wax ni man murid laa man tiijaan laa am na solo mais dafa am lu ko ëpp solo mooy nekk jullit ak wér ndax bala ngaa nekk murid wala nga nekk tiijaan da nga nekk jullit ba pare mhm. te jullit bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ndeysaan ñoo bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw woowu ngay bay na mu rafet lool mhm. maa ngi lay ñaanal yàlla nga ci yàgg tegu amiin yàgg ci nekk ci yàlla sàmm la ci aar la ci ah su ko xanaa ñu way seen Seydi Hadji Malick rek njool faam maa jaxaay lu la tee di xaacooy si lëmbe Sénégal yaa wane leeri diine wàccu ici lëmbe Sénégal yaa wone leeri diine waaw waaw نور دين عيسي رسول نيوت ما يسين بايو دي أيوة ndeysaan ci barke maami Mansour si bu saa taxawee ñu xam ko yor raayu diine العباس جاء إلينا جميل نور liggéeyam rafet na fii liggéeyam ci réew mi kuy siñeeg baax siñeel ko ko cey liggéeyam ci réew mi kuy waxu mbaax waxal ko ko demal ndar demal jël jóob ba Kawlax demal Podor imaam boo fi woo labbayka lay wax lii liggéey na ko te aas alquran ñaareel ba mooy lan sunna su la teg ay dëggoo jëf lii mu jëf aas jëmee fu ko moo tax xoolal xilaasu zahab bi wax nga nu kiiraay ya mu doon ndeysaan sàbbaale yàlla ki bindoon wax nga nu géej ya ko dogoon lam ci sëmbe way nga ko si ngaari wax nga nu la xewoon ca teenu zam-zam ba kameroon xëy sakk teen ba ngir kañaan ndeysaan yem ca jóor way nga ko si ngaari wax nga nu abraki ñayam la ko merloo bu mu xëy ni day màbb kaaba ga la ko ca dal way nga ko si wax nga ñu takki soxnaam baayam ba abdalaay bay ba ñaani woon sëy ba wax nga nu ko wax nga nu rasul kañ la juddoon wax ña ko doon ndokkeli yaayam bakkanam leer ya fa jolli wax nga nu ko wax nga nu kañ la bay ba faatu wax kañ la yaay ja faatu la abdullahi ba ci alal mu donn ko wax nga ñu rasul kañ la takkoon xadija wax la mu jëloon ci ay gëléem ngir canewoon xadiija Maodo way nga ko wax nga nu giléem nga mu rayoon ca cét ga jaam ya fa dikkoon di fecc ngir xumbale woon cét gam ga jaxaay wax nga nu ko wax nga nu kañ la ko yàlla yónni woon xur wa ko jibril fekki woon aaya ba jibril wàcce woon lépp jaxaay wax nga nu ko wax nga nu guddeem nga mu rañaan wuy ji bind asamaan yonent yaak waa asamaan nañu ko teeroo way nga ko moo tax ma ni billaay waat naa ci barke maami Seex Tijaan Si bu saa taxawee ñu xam ko yaraayu diine tabaarakallah waaw kon mbokk yi euh, loolu ngeen dëgg euh, mu bàkk ko Seydil Hadji si Sy euh, Bakary Karaman di bàyyi Serigne Babacar si ndar ndar mu mag bi di wax ni am na solo tey ñu dalaloon koo xamante ni kenn dootu ko présenté di wax ni bëgg nañu ci jëmmam ji bu baax kon xaaj Pape Serigne dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggoo mbokk internet yi nu daal di yëkkati jotaay bi. ah waaw li may tàggoo rek mooy ñaanal leen rek seen site bi jëm ca kaw ca kanam tabaarakallaahu te am naa yaakaar ni bu ñu fi jógee fii. dina jóg ca kanam. macha allah incha ndax ñeneen ñu ko xamul woon incha allah dinañ ko seetaan. ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi ah ndax suma waa ji taxaw am na mu salaamu lépp lu mu dugg rek incha allah suñu borom dina ci def ndam. ndeysaan ak baax Cheikh bu baax nuyu Hadj kër Diouf waaye jili maa ngi leen nuyu bu baax di la sant comme ni ma ko waxee woon sànq rek. yow da baax yàlla yàlla defal la jàmm defal la sutura. amiin nga invité yeneen daanaan. yow yaay sama ndaanaan li ngeen wax waaye yow boo xoolee tabaarakallaahu eh, ñi nga bokkal koñ bi ñoom nga gën a sawar ci ñoom invité leen. ndeysaan waaye nag doo ko rëccu mukk yàlla yàlla defal la jàmm. amiin defal la sutura. maa ngi ñaan ci réew mi jàmm ñaan ci réew mi sutura ñaan ci réew mi xéewal yàlla na yàlla defal jàmmi àdduna jàmmi àllaaxira dàqal ñu seytaane lafal ñu cat aar njaboot gi sàmmal ñu boppam yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqale. yàlla bu nu yàqal ci daraje Seydina Muhammad ji li li daal lan la doon alayhi salaatu wasalaam kon mu mel ni euh, euh, noonu mu tàggatoo am na solo di wax ni mbokk yi euh, moo nekkoon seen jotaayu axlu bi di waat bu baax nag mboolem koo xamante ni yaa ngi ci biir barab bi Sunugal 24 di ci yëngu di beral bu baax ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi nii nga xamante ni soxna ummi ñu ngi koy ziar l'infatigable Dóor waar yal na sa jàmm yàgg di ñaanalaat bu baax nag suma yaay ajatu soxna ña ngi suñu borom yàggal ko fi lool

yuriduuna waalay xawilan